tey ji li nga dimanche 26 novembre 2023 Nous vingt la semaine mondiale de l'entrepreneuriat donc c'était prévu depuis la semaine passée mais vu avec y yi ngi au niveau du pays du territoire national donc nous renvoyé ko cette semaine donc nous démarré depuis le vendredi passé euh, Bataille tey dimanche mu nekkoon clôture donc, cette forum économique avait pour thème comme l'entrepreneuriat communautaire, comme alternative de l'immigration irrégulière. Donc, nous disons aujourd'hui, au niveau de la Médina, il y a énormément de jeunes et de femmes qui ont entreprendre. Donc, nous, on a jamais initié une quelconque activité de promouvoir les jeunes entrepreneurs mais pourquoi pas nous créer cette forum sur la journée internationale de l'entrepreneur ànd defar Médina dañoo am séyee boo xam ne dañuy defar lépp lu jëm ci produit boo xam ne céréale locale la li ñuy bay di ko dundee ci réew mi nun loolu la ñuy liggéey parce que amante nañoo nit ñi xamante nañoo ñoom donte jënd bi demeewul noonu waaye nag contact yi ñu am ak nit ñi rek jaral nañu parce am na ñoo xam ne tey bu ñu fi jógee bu ñu soxlaatee cere wala sangal wala araw wala ruy dinañu ñëw ànd defar Médina ndax xam nañ ne liggéey bi set na rafet na te pare koy jaayee yomb na te fi ñu nekk soriwul ñun ñëpp Medina lañ dëkk. parce que ñun dañuy yëngatu ci batik bi dañuy yëngatu ci ci euh, couture bi ci agro alimentaire parce que yéen a ngi gis ci table bi am na ay gerte suukar am na jinjeer koko jinjeer yoo xam ne dañuy recevoir formation bi. dañuy def tamit fabrication de poupée traditionnelle mooy yi ngeen gis ci table bi nii euh, am nañ daal atelier de couture boo xam ne ñun ñooy ñawal suñu bopp. kubal suñu bop cuubal suñu bop batik bi nak moy suñu domaine de prédilection. ci medina dafa nek kuréelu ndawu medina ñi nga xamante dañuy yëngu ci walu entrepreneuriat ak lepp lu and ci soqali ndaw yi ak jëmale leen kanam tay nak dañ ñu invité woon ndax euh, dañu maréné sunu mentor bu ñuy wax feu Adja yassine Diagne mu doon présidente Forfedac ak vice-présidente AFEM ñu ñëwoon fii pour rendre ko hommage et waxtaan ci li nga xamanteni yassine Yacine liggéey na ko ci ndaw ñi liggéey na ci jeune yi liggéey na ci jigéen yi ci walu autonomisation ci walu formation ak ci wàllu euh, dynamiser seen euh, entrepreneuriat. ndax tey jii bu ñu ci fi nga xamanteni ñi ngi gis ndaw yu bare di gaday di dem di wuti ay yeneen i ndaw gem dekk bi gem ni ko liggéey am na fi taxawal forum bu melni man japp na ni c'est très important c'est très important parce que dafay firnel leneen.

te ñun tamit ay jigéen lañu jigéenu Médina la ñu bokk et di vraiment di di rafetlu l'inclusion parce que souvent dañuy di ñu fàtte ñun nag ci man ci fait partie du pencum Médina ci la bokk donc nag ñu ñëw tamit wane suñu bopp wane ne jigéen ñi ñun ñëpp benn lañu ñun xëy na la handicap rek la ñuy gis mais tey dañoo gis ne ñun ñëpp benn lañu à part le handicap c'est difficile parce que souvent damay wax ne ñun one est des femmes plus tu gères ton handicap tu en tant que femme, c'est difficile pour tout le monde de gérer ce handicap. Donc c'est difficile, mais quand même, on essaie de se battre pour être, euh, pour être sur lobby, quoi, nekk euh, ci ci ñëpp fu ñu nekk quoi. waaw moi tax tey jii moo ñu ngi nii te di ko rafetlu di di yaakaar ne tey bu ci lii dina am d'autres pistes yu positif yoo xam ne dinañu gën a ñoŋal ñu gën ñu renforcer gën ñu gën ñu former parce que ñun ñu ngi si bi. mais ñun ñuy wax man particulièrement je demande que may ñu benn formation en teinture bio parce que looy wax rek bio bi tey on parle de bio te bio moo gën parce que ñun dañuy exposé partout même hors du Sénégal ay tubaab ak ñëpp donc bio bi moo gën ci ñun loolu la ñu gën a wax ñu gën ñoo jàppale surtout si financement yi xam ñi dañuy liggéey li ñuy am ni dañ koy defaat mu kii mais ñu renforcer ñu financement bi ñu gën a mën a ñoŋal suñu bopp et puis à l'issue de ça pourquoi pas créer benn réseau boo xam ne réseau des femmes de la Médina boo xam ne ci su ay entrepreneur lañu ñi nekk ci artisanat ñi nekk céréales locales ba nga xam ne tey ku soxla dara da dem ñii di def céréales locales ñu constituer genre consortium nekk si ñii di def batik ñi nekk ni dem di uti ay marché bu ñëwee ñu partagé comme tout le monde. waaw forum bu pencu Médina forum bu rafet la. gis naa si lu seddal sama xol li li li Ibrahima Traoré ak équipe am bi li ñu fi def loolu la ñuy xaar si ndaw loolu mooy ndaw 2023 di xool naka la communauté di mën a développer si si seen biir jël xool jeunes yoo xamante ni dañuy yëngu si lu am solo mbool.

koku suy dem marché dafa wara soble doomu moko def parce que koku tamit su dem marché su tànnee dal yo doomu moko def day tax vie bi di circuler ci sen biir le développement communautaire dañu wara gëna cër gëna jox importance lo xamante suñu doomi ñokay défar koy moy loolu mooy seen liggéey moy mooy tamit li ñuy def té wa Pencum medina euh la lañuy def ci foire bi té loolu lu am solo la té bëggon na ko gis ci commune yépp mu régulier comme lumaa lu mu doon euh, mu mu gëna régulier ci ville bi. ci li nga xam mom lañu joggé légui léegi muy soixante heures yi nga xam semaine de l'entrepreneuriat lañ ko def tay euh ñu def 2 jours def ay. Euh, exposé fi ay ay jaay ak yu mel noonu genre foire troisième jour bi ñuy waxoon ne dañuy def panel bon ñu am nag lu ñu si def loo xam ne peut-être bett nañu ndax dañu dem def seen programme ba pare ñëw nañu yow bokk nga si nga xam ne ñoom la ñu war a sargal si journée bi kon nag ñu si am contentement bu baax a baax di ñaan suñu boroom may pencu Médina ak ñëpp ñoo xam ñu ngi yëngatu fii ci Médina yàlla may leen ndam ci li nga xam moom la ñuy def rawatina jeunesse bi nga xam ni moom la cible bi mooy jeunesse bi ci surtout jamono jii nga xam ne la ñu nekk nga xam ni gis nañu déperdition bi dafa bëri trop ci ndaw ñi ndax suñu boroom dafa wax ci alquran walaqad adalla minkum jibillan kasiran afalam takunu taaqiluun mu ne de génération en génération xale yi ñu ngi gën a nekk dans la déperdition te lii nga xam ne gis nañ ko muy immigration clandestine bi defe naa wane na déperdition bi nga xam ne si la xale yi nekk di dem aveuglément di dem di jël ay alal yu bëri di ko ci def alal yoo xam ne bu ñu góorgóorlu woon mën nañ taxawal entreprise entreprendre kon nag ci bés bii nga xam ni dañ siy sargal suñu yaay ju baax joo xam ne génn àdduna muy Adja Yacine Diagne def naa moom rek doyoon na. Adja Yacine je pense c'est une pionnière de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes ñëpp xam nañ ko Sénégal tey Adja Yacine amul lu mu deful. amul lu mu deful ci wàllum xale yi jigéen ñi pour ñu mën a jëm ca kaw wàllum mouvement des jeunes femmes ñu mën a jëm ci kaw wàllum développement communautaire tey Adja Yacine je pense bu ñuy wax si moom sax duñ fi juge donc lu ñu koy def rek mooy ñaanal ko suñu borom fu mu tëdd mu gënal ko mu euh, fukki junni yoon fi mu juge waaye ndaw ñi nag ñi nga xam ni ñoom laa àndal ci dak euh, ci euh, pencu Médina yàlla dafa dogal fépp fu ñu jëm ci mbiru diine fu ñu jëm ci kilifa këru diine yëpp. moo xam amul xàjj ak seen bu ñu seeti xalif généraux yi bu ñu kilifa yi ku ñëw Dakar ñoom ñëpp dañu ñëw si man ne ma ñëwal ñu ànd vraiment mu nekk loo xam ni delloo njukkal la rek ñoom buñ may bu peut-être buñ may defal waaye man dama bokk si ñoom euh, ci li nga xam ne doxal Médina lañu dogal ndaw tamit war nga am ambition war nga entreprendre wala ngay ci yoon dinañu fonk seen jàng muy li ma gën a bëgg man ndaw buy jàng chaque fois sama ay doom dañ may reproché di ma wax yow papa yow saa yoo gisee kuy jàng da nga koy laaj ban classe ngay def ak ban formation ngay def daf ma neex tellement peut-être yegguma niveau yooyu peut-être am nañ si rek expert en rien curieux de de choses pour ne pas dire tout mais dañuy ñëw di leen gën a encourager pour xale yi ndax gis nañu taux de réussite bi léegi ci xale yi mu ngi gën a bëri waaye nag bu ñu gisee tamit ñu ngi jàng dem ba université waaye bu ñu jàngee ba ba pare tamit du ñu gis liggéey loolu tamit nekk loo xam ne bu fekkee tegu nañ ci yoonu entre entrepreneuriat yi nga xam ne moom la ñu moom la ñuy def ay journéem euh, ñu dugg si bañ a toog rek di xaar liggéey defal seen bopp loo xam ni ñoom dinañ dinañ si mën a génn. góor gi Diop àdduna ñëpp xam nañ ko Sénégal ñëpp xam nañ ko le monde entier parce que il est le vice président de la chambre de métier. donc mu ngi nekk doomu Médina di liggéey liggéey bu am solo si l'artisanat surtout. de promouvoir artisanat de développer beaucoup bu des jeunes et des femmes donc si on un choix pour notre palais, donc c'est normal parce qu'il reflète l'image de l'entrepreneuriat de la Médina je pense son image comme nous parce que c'est un acteur de développement un acteur culturel parce que si on ñu yor imam l'imam imam entrepreneur parce que c'est l'imam qui est donc quelqu'un qui dirige nit ñi dañ koy bàyyi xel donc gis nañ ne imam mi ngi diriger mi activité de communautaire yi di yëngu ci li nga xamante ne aussi mooy entrepreneuriat donc c'est normal ñoom tamit ñu rendre ko hommage pour Médina xam ko Sénégal xam ne même les imams ñu ngi entreprendre même les imams ñu ngi toog seen dëkk di jéem a xool naka la ñuy def pour ñoŋal seen dëkk. damay ñëw foofu perspective yi damay tëjee ak ki nga xamante ne mooy notre maman aussi Sohna Ndiaye parce que moom aussi elle était marraine elle était la marraine moom aussi mu nekkoon une nekk une brave dame dañ ñaan suñu borom mu yagal taxawayam loolu rek lañ koy ñaanal parce que brave dame boo ko ça veut tout dire waaw c'est une brave dame dañ koy ñaan suñu borom mu yagal taxawayam maintenant nak en ce qui concerne les perspectives de l de l de de Pencum Médina man sama domaine sama sama si sama côté lay wax muy emploi ak employabilité tay on a lancé un pas pas boobu ñu tek dañu gis né exposants yi ñu ci bëri tay bëgg nañ ko Medina Tay, je pense que tey qui s'est fait. fii Medina Médina ñoo xamul concept foire ak forum léegi tey aujourd'hui on va les faire adapter d'abord cette foire et forum seen biir ba pare ba nga xamante ñoom xam nañ ko tey bañ dem bañ naan ah yow eh préparal de dans deux mois forum bi day ñew forum bi buy ñew bu ko defee nak ñëpp dañ fay baax bi ko di dem nga xamante dinañ dem ba jeunes dañuy produire ay production yu bëri di ko teg di waajal foire bi comme ni ñuy waajale ay FIDAK ak yeneen ak yeneen parce que loolu mooy suñu objectif. on dit l'heure est actuellement grave parce que gis nañ ne fi mu toll ni Moussa beaucoup de jeunes ñu ngi jël gaal di dem te beaucoup de femmes ñu ngi investir ñu ngi financer seen i doom jël gaal yi di dem te beaucoup de femmes aussi ñu ngi entreprendre beaucoup de jeunes ñu ngi entreprendre ñu si bëri daanu na ñu si bëri bëgg nañ dem waaye mënuñu dem donc pourquoi pas ñu changer waat concept bi. changer waat l'idéologie bi nga xamante conscientiser waat la jeunesse comment faire en promenant en en en nu mu tudd bu ñu jëlee xale yi tey promouvoir leen tey yaakaar nañ ne xëy peut-être ñi nga xamantene amon nañ benen arrière-pensée ou bien je ne dis pas arrière-pensée benen ah, ki bu gis-gis bu ñu gisee neneen autrement parce que peut-être bu noon ne seen vision boobu dafa bonne parce que tay nit ki mun na sacrifier vie pour tekki am na droit il a il a il a il a le droit bien pour sacrifier vie pour teki parce que dans damay dem teki wala ma dem sama yoon parce que su ma dundee ba dee teki mu amul ma njëriñ donc idéologie boobu mun nañ ko changer autrement tey tukki teki mun nañ utiliser tout teki au lieu de tukki teki pourquoi ñu promouvoir li nga xamante ne mooy suñuy métier national promouvoir nos produits locaux yi nga xamante ne moom la ndaw ñi di def cette forum bilan bi ngay

tey état dina ko gis keneen ndax keneen dina ko gis bu ko financé dina mun a former ay yeneen jeunes en informatique et bureautique tey ku si mel ne tey nga ñëw gis ay par exemple xale jigéen ñuy def ay transformation céréales locales ay fruits et légumes ainsi de suite boo ñëwee financé leen tey ñoom aussi dina leen permettre même ñu duggul woon ci domaine boobu nañ ci dugg te ñu leen xamul woon dina leen xam donc tey bilan bi ñu ci mën a jëlee exposant ñu jëloon on a eu une entière satisfaction

comme tey xalé yi nag ñoom ñi nga xamantene ak soxna yi nek medina gis nañ ci sen bop parce que loolu lañ ci outlo woon defuñu ko pour xaalis defuñu ko dara mais pour ñom rek ñu mëna promouvoir li nga xamantene moy l'entrepreneuriat communautaire. di remercier waat la commission emploi et employabilité de Medina, et un chapeau bas aussi au président Ibrahim Traoré pour son excellent job bi nga xamantene mu ngi koy def au sein de la commune waaw remercie aussi le président Zana Bokande le président Paco Jackson chap qui aussi ñëw nañ fi ànd ak ñun def visite des des des stands jënd si gars yi nga xamante ñoo affaire donc di remercier aussi les chaînes qui nga xamante ne jàppoon nañ ci mbir bi aussi les télévisions comme CNTV, TV la radio comme RMD Medina TV HD sànq ñëwoon na fi di aussi nos infatigables Dak Medina, di leen aussi on est de tout cœur avec vous. Dak Medina.